xam nga askan wu nekk jaadu na ku jóg di gëstoonte ak ñoom wala ngay wax ñoom nga xam askan wi li ñuy xalaate boo demoon te ña nga xam ñoom lañ doon tuddee ak yunaan bu yàgg bu grec yi seen xalaat ñun lépp philosophie boo dee wax ak ñoom bëgg leen a convaincre boo indi dalil falsafi ñooñu da nga leen di convaincre nga xam ne ñooy ahlu sunna ak ni ñu leen xamee ak fu ñu mën a nekk seen dañu sukkandiku mooy alquran ak sunna boo leen indilee dalil ci alquran ak sunna convaincre waaye buñ bàyyee ñi nga xam ne ñooy ñu jàng ci sunum réew tey gox bi yëpp te ñi jàngul mooy gën a bari wala déet ñu jàngul mooy gën a bari soo doo xool man nga ñuy tànn léegi dañuy wax ne rek tolloo ni jamono yoo xam ne al amatu naas boo leen bëggee convaincre damay indi dalil falsafi ndax ñun léegi sama àmmatu naas ku leen bëgg a convaincre lan ngay indi ban dalil amul amul kenn ku ne dina am ci cosaanam loo xam ne dafa jeexital ci ci xalaatinam ak dundam ñun dafa bokk ci suñ cosaan ci suñ gox bi bépp fii ci Afrique sowu Afrique li ñu tuddee bëre dafa doon lu rëy bi daw ci suñ deret bëre lu rëy la ci loolu lu muy lu muy lu muy signifie sunu dund ñaari mbir ci di bare dëgee rek nit ñi daal lañu doon ñaari xaaj wala déet kenn ku ne am koo faral boo ko laajee lu dund lu tax mu faral lu mu lay ma neex kii bi nag di tànn ñaari mbir yu bëri tànn ku ko neex suñ déggee ñaari wax yu juyoo moom la ñu tànn loolu moo tax fii jafe maanaam pour gox bi bañ gën a jafe looloo ko jafeel ci xam dañ leen ci dara ne laa tànn dëlloo koy xujja loo wax borom xam-xam yi mën na leen jiwoo yow lii nga wax wax ni waaye waxi du moo ma neex comme la mu ko waxee ca moo ma neex